رضي الله عن بقية السلف قدوة الخلف فخر الدين والوطن مولانا العبد الخليم أحمد بن محمد بن حبيب الله بوكو جلدي بوكي تالبي بوكي ريمي نيجي يكتي سنو كادو تندقل الشيخ محمد المنتخى الخليفة العام لطريقة المردية حفظه الله تعالى ورعاه وأيده وزاد من نصره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 sëriñ bi nee na mu ngi ñëpp di ndokkee ñëpp ci weeru tëdd wi di weer wi nga xam ne mooy weeru koor di ñaan suñ borom lim ci digle ci ak jaamu yàlla yàlla ko nangu li nga xam ne wattandiku la ko jiitam ci weer wi ndax dégg ngeen ci xaddis ba wax ndax weeru koor dafa bokk ci farata yi يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون واي دينغن سي حديث مو من من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه نني كيب كو خاني آه، داغا وور تا سي تي وور بايو واخي تياخان اك جيف جو نان يالا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 mooy wax li mu war a wax nit ñi buñ ko diggee jëfe jëfe ko mu jariñ leen buñ ko déggu ñàkkuñ ko jëfe rek boobaa moom mu wàcc kon loolu mooy li nga xam ne mooy li li ko boole digge ma njabootu Sëriñ Tuubaa gi kon mu ngi fàttali ci réew mi xam ne fan yii xew-xew yi bari na lool rawatina bakkan yi ci rot loolu nag nee na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 kon la ci jëk moy tuub delu ci suñu borom ngir nattu yi mëna a jeex ngir xamne bakkan yu rat bokku na ci nattu yi nga xamne suñu borom waxon na ne dana leen ko tek wala nabluwannakum bi shay'in min al khawfi wal jui wa naqsin min al amwali wal anfusi wa thamarati wa basiri sabirin wa naqsin min al amwali wal anfusi kon xam ngeen ne bakkan yu rot bokk na ci nattu yi suñu borom di wàcce ci mu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 boo xoolee diine jihaat li tax fi ko lislaam di santaane mooy ngir nga défendre sa bopp wala ñu attaqué sa diine kon loolu boo ko see seetee atte boobu itam kon da ngay gisaat diisaay bi ba ca tool tool dolli kuwaat mooy alalam alalam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 da ko da ko da ko da ko diisal kon loolu nañ xam ne euh, lislaam lu diis la ci moom bakkanu doomu aadama moo tax sëriñ bi nee ne mi ngi fàttali loolu euh, jullit yi di ko fàttali taalibe yi na ci ñëpp bàyyi xel lépp loo xam ne mën naa indi bakkan bu faatu wala mu indi fitna rek nit ñi nañ koy wattandiku bu baax a baax te xam ne ku ko def ku ne sa bopp nga koy defal képp koo xam ne sàmmantewu loola itam bàkkaar ba suñ borom lam diggee woon euh, dara mënu ko dindi kon sëriñ bi nee na mi ngi koy fàttali ñëpp di ñaan itam nag ñëpp gën a bàyyi xel ci loolu lépp lu mën a indi fitna rek ñu wattandi ko te xam bakkan doomu aadama diisaay bi ak li ci nekk hmm. nee kon loolu mu ngi wax ñëpp lu waay man ci dellu si boroom jéggulu ngir bàkkaar yi mën a wàññiku dellu suñu sa borom ngir yërmande yàlla man a wàcce waaye itam lépp lu waaye mën a génne ci sarax ndax sarax kat balaa sarax bokk na ci di koy teggi kon li yunfiq su saati min saatihi bu man qudira alayhi li fal yunfiq ma aatahu llah kon loolu sëriñ bi neen loolu lay fàttali ñëpp ñu bàyyi ko xel di di di leen ci ñaax di leen ci soññu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 yëg na ne nag bi mu wootee liggéeyu Sëriñ Tuubaa ñëpp bàyyi nañ seen yitte dem ci liggéey Sëriñ Tuubaa loolu na kon nee na Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo tax ngeen koy jëf nee na mi ngi leen ci eh, ñaanal mu nongul nañ jëf ji te lu ngeen ci jëf rek ngeen day ci tawfeex ak ngërëmam di ko jeexale nag loo xam ne eh, ay fàttali rek la ndax fan yi njàmbat yi bari na lool ci taalibe yi ak ci ñi ne dañoo bëgg lu baax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 ñi nga xam ne seetaane mënuñoo am ci mënta am mënta am ci ñoom aw yoon ñooña jéem a yàq seen pëstéef doomu adama tuuti na ci jéem ko def kon ñi koy def itam nañ xam ne naqari nit ñi lool te naqar bi kat bu dee bu continuer ñi ko war a saafara dañ ko saafara te buñ demee ba ba di ko saafara it dana àgg foo xam dugal kenn kon loolu itam nit ñi war nañ koy bàyyi xel bu baax te xam ne bu fekkee lu baax lañ bëgg wala ñu bëgg yee nit ñi it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 ba noppi wëlbatiku ña nga xam ne wóor leen duñ say naware duñ say morom lu la neex xëpp leen loolu bu yàggee bu fa jàmm mu jëkkee du fa mujj. kon loolu itam ñu ngi ci bàyyi la xel ñi nga xam ne yéen ñi nga xam ne loolu ci seen loxo la jaar yéen itam ngeen ci bàyyi xel ndax am na ci loo xam ne bu ko nit indee jëmee ko ci yow mu wóor ak yàqare te amul amul njariñ loolu boo ko jàllalee itam yéen yaay yéen yow te in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu alxuraan dafa wax ne buñ la joxee benn information na ko vérifier ba xam ndax liñ la wax dëgg la am ndax euh, lam cee bañ euh, fatabay an tusibu xawoon bi jahala fa tusibu ala ma fa'alu nadimin mooy bañ nga joxe benn information boo dee ba ci mujjee nga xam lañ la waxoon wér loolu doomu aadama war na koy sàmmante ci diggam ak boromam waaye war na koy sàmmante diggam ak ay nawleem doomu aadama ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala